y a des rumeurs que ni këram la est-ce que moom këram la ou pas on va en discuter ñu waxtaan ci baax mais waxtaan yi dama ko sëkk ak sama frère sama confrère Mario euh, mon ami mon frère Gallo donc maa ngi leen maa ngi leen yaa ngi si jàmm. sant Serigne. ayca nuyul gars yi Baye Fall. waaw ah, maa ngi nuyu sama mbokku jullit yi. di nuyu sama mbokku Baye Fall. waaw di nuyu yi. waaw tamit presse bi ñëw. tamit xam naa ne sonal naa tamit maa ngi leen on est des frères. di leen sant tamit. di leen santaan. parce que lu ma xewle ngeen ñëw. ndeysaan loolu rek yëg-yëg la. yow sunu frère la ñaar waaw. <laughs> laaj bu njëkk bi moom mooy noo dundee màggal gi euh, murit nga taalibe taalibe Serigne Saliou nga ku ne xam na Mario ci yoonu murit naka nga doon waaje màggal bi waaw ah, màggal bi di ko waaj kon samay mbokk murit ni ñu koy waajee waajee may sant sëriñ Touba rek. ndax sëñ bi moom lii mu ñu liggéeyal pour ñun la. kon nag ah bii war nañ ci bay suñu waar de. xar si mm. suñu tànk ci bay. parce que yëpp pour ñun la. liggéeyal ko pour kenn pour ñun la ko liggéey ñun murit yi kon nañ si xar suñu tànk tubay ndax sëñ bi moo ni sama bis bi mm. képp ku si jàppale xar gileem nag ginaar loo si am rek def ko si kon nag dañ koy sant bisum cant la. d' accord relation bi nga am ci showbiz bi ak artistes yëpp lu tax amoo ko ak jàngkat yi parce que seet nañ lépp looy def di lu jëm ci jàng ba Kër Massar ba fii Touba da koy jox euh, Mohamed Alla Diop yeneen jàngkat yi fi nekk nga xam ni euh, c' est des grands noms ci wàllum Zikrulaah lan moo tax aussi ñoom du ñu gis say bës ñoom ñu ciy teew da nga wala ak ñoom liaison wala. ankay man ñëpp laa am ak liaison. waaye yàlla daa dogal ni Mohamed Alla Diop kon nu ma koy waxee c' est te bis bi Mohamed Alla Diop moo ko sàkku man bis yu may tëgg yëpp amaana Mohamed Mohamed moo ko sàq parce que mooy jël bis yi ne ma jëlal ma may la. kon nag sant rek laa mën a def ndax bu jël nit ku yëg-yëg weesuwul loolu jël jàpp ay bisam ne ma yow laa koy may sa biir kër laa koy def. Mhm. ab cant la maa ngi koy sant bu baax. di ko santaat. waaw fan nekk nii kër Mario Mbaye. waaw sama kër papa laa nekk. waaw sama kër baay laa nekk. Mhm. waaw loolu la yow. waaw maa ngi sama kër papa. sa kër papa nga nekk. waaw d'accord parce que dama dégg ay rumeur ñu ne fii sa kër la et puis yaa koy tabax y a très longtemps am nga projet bu yaa ko taxawal ko di ko tabax donc du sa kër kon sa kër papa la. wala yaa ko jëndal may ko sa papa waxal mu lay rek. en tout cas daal sama kër papa man ak samay rakk ko boobu kon sunu kër la ndax sama kër baay sama kër la. ñu waxaat si sa diggante ak Sidi Diop. mu ngi ci ay jafe-jafe mi ngi ci ay problème ba lundi lañ la war a taxaw devant le juge donc xaritam la bi nga yëgee nouvelle bi takk naka nga ko yëgee parce que bokk nga ci les premiers ñu ko njëkk a yëg waaw te metti nañu di ko naqar waaye si góor yàlla dëgg la te ab góor la te xam naa ne lii dal ko jommul kenn waaye ñoo ngi koy ñaanal di nga xam ni foofu mu nekk yàlla na ko fa yàlla jële lu mu gën a gaaw te xam ne ay ñun ñëpp ay mbokkam ak ay xaritam ñoo ngi koy ñaanal jàmm si fu mu nekk te suñu xel moo ngi si moom bu baax. est-ce que da nga jël foot bi teg ko ci kawam comme ñu ko bëri di ko critiquer naan Sidy Diop euh, responsabilité yi mu war a am en tant que artiste amu ko parce que ku mel ni moom waroon na weesu di dawal san permis à ce bi mooy deuxième fois muy lii di ko dal daloon na ko ci beneen euh, oto tey ji mu dalal ko donc ñu bëri ñu ngi wax naan est-ce que responsabilité mu ngi ko jël san 100 pour cent. waaw daa juum rek nit ku dul man muy keneen a juum nag ñëpp koy dem Youssou Ndour waaye nag nit ku dul juum amul mag dina juum ah xale dina juum ñëppay juum mm-hmm. daa juum rek ak sa xel dal na ci ah dañuy sant rek di ko ñaanal ñaan rek lañ mën ñaan rek lañ mën ñun nag dañuy ñaan te yàlla lu ñuy ñaan yàlla nañu ko suñu borom may ak màggal gi Siri lundi incha allah damaa bëgg mu fekk ko bii këram alors Mario ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay félicité ci bés bi nga xamal ci euh, lendemain màggal gi di sant Serigne Touba initiative bi naka la dikkee ak ban jeexital lay am par rapport ak euh, cant gi parce que dañuy gis Mario ci showbiz bi da ko gis ci cant gi léegi cant gi ban jeexital lay am par rapport ak dund bi ngay dund ci showbiz bi. waaw xam nga àdduna mooy nit ku nekk daa am vie te nit boo amee vie divertissement si nit la bokk. divertissement si nit la bokk te nit nag ak divertissement ñoo am kon dañu cant ba. Sénégal ñëw nañu. Ah, Kaawu Aziz Dabala wax on a vu l'arrestation euh, d'un présumé meurtrier. alors yow loolu aussi en tant que Sénégalais en tant que pouvoir waaw Kaawu Aziz Dabala di ñaan justice def liggéeyam justice na def liggéey liggéeyam justice nag bu defee liggéey jàppale ñu si parce que tamit ñoo ngi koy naqaru te maa ngi jaale seen waa kër bu ndax métti nañ ñun ñëpp. métti nañ ñu ko ñun ñëpp. kon Aziz ñoo koy ñaanal yàlla fii mu dem gënal ko fii mu jub di ko masawu sa waaw. wéet naa mu waaw. mais damaa euh, bi ma ngi fekk madame Abe côté mu lay toppatoo que nag màggal la ñu fi indi. nañu wax si waxu màggal te non parce lañ nekk ak sant Serigne Sall fii monsieur indi wuñu si màggal la ñu fi indi. mais mu ànd ak wéet dafa a. man du ma mos a wéet. ma amee sama yaay am sama papa rek. non non moo wéetul sax parce que takk na Alima Séri waaw yàlla nee naa la. man. màggal moo xasee ba dugg Touba ànd ak samay ñaari waajur ànd ak sëñ bii ma sëñ Moustapha Imam aw ma lu may ragal. da ngaa takk alima. ah ah nee naa la. waaw man xam naa loolu. waaw xam na ah, takk nga wala takk ko parce que ñi ngi laaj question boobu est que Mario takk na ko. nee naa bu jotee rek yomb. ñoo ngi ñaan lépp bu jotee rek yomb. d'accord